ñu ngi leen di siyaare di leen ñaanal jàmm tey dañ leen indil vidéo bu ama am solo vraiment gars application bi temps yi moom mooy toj dëgg bi ñu koy laajte bari na lool lool lool ah. donc léegi léegi léegi dinañ leen ko war nga xamante ni fii rek nga koy mun a amee gis nga application baa ngi nii mooy nan ngay ba ajouter ci application yi nii ci sa écran de verrouillage bi wala nga ne centre de notification bi donc application yi fii nii yëpp ay fonctionner donc application bi nekk gratuite nga mënu ko am ci lu yomb lool lool lool donc vraiment gars yi application yi nice nice na nii nga am ko fii boo laalee WhatsApp bi day dem jarul ngay demaat feneen. dangay wàcc centre de notification bi nii rek donc nga laalaat TikTok bi wala yaay xool application yi nga xamante ni moom ngay gën a utiliser donc nga ajouté ko fii nii même bu dul dara centre personnalisé bii nii dafa nice lool lool lool lool lool ci sa iPhone donc vraiment rafet na donc bu dee gën nga si page bi ñu ngi lay ñaan nga abonné partager ñu ñëw léegi léegi léegi wan leen application bi donc vraiment gars yi application bi nice na lool ñu ñëw. premier dañuy dem App Store donc gis ngeen ko application baa ngi nii Log Launcher la tudd lien application bi mu ngi si description bi man damay demander mise à jour nii sax bu ma ko téléchargé boo leen ko téléchargé ba pare donc tur baa noonu ngeen xool tur bi lien bi tamit mu ngi si description vidéo bi application bi utiliser ko yomb na lool amul benn benn jafe boo ko téléchargé première bi nii lay mel donc gis nga ko bu melee nii da ngay ñëw si koñ bi nii boo ko bàyyee si koñ bi nii. donc gis nga ko nga ñëw fii nii nga choisir application yi nga xamante ni moom ngay gën a utiliser boo duggee fii rek donc gis nga da ngay gis application yi voilà anglais la nag gis nga boo ñëwee boo duggee si application yi nii yaay choisir application bëgg a ajouter de verrouillage bi nga xool ko mën na jël application yu bare bari bu ma jëlee Facebook bi donc gis nga ko da ngay continuer ne ci kaw voilà donc gis nga lu mel ni xob ne ci koñ bi noonu foofu ngay cliquer léegi boo ko cliquer nga vérifier na option bi activé wu na donc bu activé woo rek donc léegi nii boo xoolee fii nii tamit da ngay mën a choisir ñaar application nga bëgg ñu nekk si écran de verrouillage bi man six laa ko bàyyi bu la neex tamit nga jël quatre wala cinq wala six yaa yaa xam application yi nga fa bëgg a def nombre bi voilà donc nga def nii rek boo continuer ci kaw foofu noonu rek boo ko enregistré jeex na donc da ngay gis boo wàccee sa centre de notification bi nii da ngay gis application yi nii Facebook baa ngi nii léegi laa ko si. yokk donc gis ngeen ko te bu ma ko laalee automatiquement première bi dalay laaj ouvrir nga ouvrir TikTok bi déggal nga nga def ouvrir Facebook bi jeex na léegi dootu la laaj ouvrir dootu laaj dara boo ko wàccee nii rek boo duggee donc da ngay dem ci application bu la neex donc vraiment gars yi application bi baax na et puis actuellement ni gratuite la mën ngeen ci profité ngeen defaale ci lu ngeen bëgg voilà donc vidéo bi tey loolu la ñu leen andiloon ñu ngi leen di wax ngeen abonné partager may ñu doole ba beneen vidéo incha allah bu leen fàtte lien application bi mu ngi ci description vidéo parce que application yi déjà dañuy bari mun nga dem doo gis bii ni original bi